jataayu koor bi ñu ci waxtaanee euh, lu jëm ci àttey koor te mu yitteel ab jullit te nag ñi fas yéene ànd ak yenn waxtaane euh, li nga xam ne mooy yàq koor ndax koor comme niñ leen ko waxee ci njëlbeenu jataay yi daa bokk ci ponk yi nga xam ne ñoo ŋànk diine ku ko neenal rek dangay ngay sàggane diine bu nga defee koor ak coono bi bu fekkee jullit bi da koo taxawee war naa farlu góorgóorlu ba lépp loo xam ne nii mën na koo yàq mën na koo xañ yool boobu mu wattandiku loolu mu xam nag yenn ñooy yi nga xam ne ku ko def mën naa yàq ak kooram wala yi nga xam ne sax àggul ci yàqi koor waaye sib nañ ko waaye sib gi mooy mën na laa yóbbee ci koor gu yàqu ndax koor dayoom danañ ci ñëwaat incha allahu taala ci yeneen i jataay yi di ñëw daa am benn arab bu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi wër ko mu ne ko yow yonent yàlla bi dama lay laaj lan la yàlla farataal ci man ci julli mu ne ko julli juróom rek la yàlla farataal leneen loo def sa coobarewu la yaa ko coobarewu sa coobare bopp nga ko defee mu ne ko wax ma li nga xam ne yàlla moom la farataal ci man ci koor mu ne ko shahru ramadan mooy weeru koor dong la yàlla farataal ci yow leneen loo ci woor mooy sa coobare nga ko defee mu ne ko leeral ma lan la ma yàlla lan la yàlla farataal ci man ci wàllu azaka yonent bi leeral ko lépp mu ne ko nag man de li ma yàlla farataal dinaa def lépp duma ci wàññi lenn waaye duma ci yokk leneen tamit duma duma coobarewul lenn ba mu demee yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ne saxaaba yi kii de na leen leer ne texe na bu fekkee ne wax na bu fekkee ne dëggal dëgg na dëgg dëggu na ci li mu wax nii mu ne leen dugg na àjjana bu fekkee ne li mu wax dëggu la ci moom kon koor gu nangu rek day dugal boroomu àjjana bu ko defee nag julli bi war naa wattandiku mooy lépp loo xam ne nii mën na koo yàqal koor googu wala sax mu jural ko ay bakkaar wala ak musiba ndax bi izami zamani wal makaani taazumu taatun maa al isyaani jaamu yàlla dafa am barab boo koy def mu ëpp dayo lool ci beneen barab boo ko doon mën a defee waaye danga ko defee ci jamono fu mel ne weeru koor mu ëpp dayo lool boo ko defoon ci lu dul weeru koor waaye safaan bi tamit noonu lay amee weeru koor boo fi defee bàkkaar wala boo ci mooy yàlla eh, bàkkaar yi muy ëpp fuuf bu fekkoon ne defee ko ci lu dul weeru koor wala euh, ci place bi ñu wax ni ci beneen place noonu <clears throat> yi nga xam ne nag mooy yàq koor ba ci njëkk mooy sëy euh, sëy day yàq koor te ku ko def danga nga fay waaye danga nga kafaara tamit leneen li nga xam ne mooy yàq koor mooy inzaalul mani mooy génne man yi bu fekkente ne nit ki moo def moo sabab ba loola génn ci moom moo xam ci euh, euh, xool bu yàgg ci jigéen la wala mu def ay moo ko moo ko sabab daal bu fekkee ne moo sabab génn ga kooko kooram day yàqu donte nag fay rek moo ko cey war fay rek moo ko cey war du kafaara day fay beneen bis waaye bu fekkente ne mën yu ma dafa génn te moom sababu ko comme bu nekkoon doon nelaw gént mu génn loolu yàqul koor waaye sangu janaba dana ko ca war leneen li mooy al aklu wa shurb mooy lekk ak naan képp koo xam ne nii lekk na wala naan na ci bëccëgu weeru koor na ko leer ne kooko kooram googu yàlla nangu ko bu fekkee moo ko tey waaye bu fekkee ne teyu ko nag daa juum nag a ah, loolu de imaam Malik nee na na àggale kooram waaye nag wóor ne bis boobu dana ko fay yeneen boroom xam-xam yi nee kooku ci xadis bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku juum lekk baa nga naan ci weeru koor kooka nee yàlla ko leel xëy na ak fay du ko ca du ko ca war waaye lépp loo xam ne nii tamit ci jamono ji lépp lu waaye di jëfandikoo ci xeetu pikiir yi wala ci xeetu euh, perfusion loo xam ne nii day dundal nit ki da koy jox ak dund da koy mottali day mottali ak dundam muy jariñ ci moom loolu na ko leer nday yàq ak koor wala dara ju baree bare ju génn ci nit ki loola mën naa yàq koor wàccu tamit bu fekkee ne nit ki moo ko sabab ba mu génn ci moom loolu day yàq kooram waaye bu fekkee ne sababu ko dafa génn noonu loola yàqul dara ci koor euh, lu mel ne euh, maye deret loola yàqul koor bu fekkente ne e, deret ja bariwul waaye tamit sib nañ ci ki woor mu bañ a ëpp lool ci buy gàllaxndiku buy gàllaxndiku ndax e, moytu lenn loo xam ne nii mën naa jàll ca biir lu mel ne borosu e, pâte dentifrice dagan na waaye daal li gën mooy jullit bu fekkee mën na koo moytu ba bañ koo def ci lu dul waxtu waxtu waxtu koor gi bëccëg mu koy def ci guddi gi moo gën ndax wattandiku lenn loo xam ne lii mën naa jaare ci moom jàll ci biir te loolu mën na ko indil ak koor gu yàqu bu dee socc moom daa bokk ci sunna yi comme ni ma leen ko waxoon euh, dañ koo sopp waaye nag nit ki nay nay wattandiku di jàllale dara ci biiram bu fekkee ne mu ngi def loolu leneen li ci ëpp solo mooy comme loolu dafa aju ci cër yi lekk ak naan ak yu mel noonu loolu dafa feeñ waaye dafa am yoo xam ne day yàq koor yàqu maanaa ndax nit mën naa xëy woor du lekk du naan def yenn yi waaye loolu tarewu ko muy jëw wala muy wax naka sudul noonu ak leneen ak leneen wala jëf yoo xam ne ni dafa junnadi ko yooyu na ko leer ne bu fekkee ne sonn na ci ñàkk woor tamit ci ci ci ñàkk lekk ak ñàkk naan na ko leer ne loola bu yàqul ak kooram tamit yóbbu na ab tuyaabam bu defee góor euh, nit ki bu wooree jullit bi bu fekkee ne dafa woor na sàmmonteeg yu baree bari nay wattandiku jëw nay wattandiku tooñ nay wattandiku génne ci làmmiñam wax ju ñaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sax nee na bu fekkente nit ki dafa xëy woor nit ñëw saaga ko wala mu ŋàññi ko ah na ko wax na ko man de inni saa'imun man damaa woor yem ca loola nekk ca la mu war a nekk nag te na leer ni bari na ci ñoo xam ne nii bàyyi lekk ak naan moo leen gën a yomb bàyyi jëw wala bàyyi yenn euh, wax wax wax wax wax ludul noonu wala yu mel noonu ak yooyu ni mu ni mu garaawee kon daal loolu yooyu yenn la ci yi nga xam ne julli bi war na sàmm wante ak moom moytandi ko ba du yàq ak kooram kon euh, ñu ngi taxawandi fii incha allah ba ëllëg ak jàmm. aqul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalaamu aleykum wa ñu ngi ñëpp nag ñi nga xam ne ñu ngi topp émission bi ci internet bi di leen jaajëfal ñoom ñëpp incha allah xam naa bés bu jaamu jàmm jërë ngeen jëf yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service